ne dañuy xëy di wax ba suba ngoon jot wax rek guddeeg bëccëg suba ngoon ñi ngi ci deru jàmbur yi di wax Pape Sire Diallo démissionné na ay dafa soxore abaa waxi ñaaw yooyu naka la ko doomi jullit mën a tooge di wax et toog ci internet bi guddeeg bëccëg suba ngoon defu leen dara amuleen benn liggéey lu dul di commentaire lu bon di wax yu bon Pape Sire tey la gën a nekk fi Futurs Médias respecté lool abaa def ko rakkam Abah respecte lol Pape Cheikh Diallo def ko magam ñun ma jaar ñun ñepp dañuy liggéey ben lañu ben bop lañu liggéey rek lañuy def motax sondage bu ñu ñu jël pay liggéey rek Pape Cheikh Diallo guddeeg bëccëg suba ngoon ci waxal lu nit lu bax la ne waxal nit lu bax day day tey ay at muy tey ben nit ku bax di ko wax lu bax nga yaakaar da ko xam soko ko ndax ndax xam nga kii dëkkitu mosu koo gis nit ñi dañoo tollu ci wax lu bax

ñi leen di masso bu baax Pape Cheikh di kon lu Aba di masso bu groupe Futurs media yeb mais nak tay gi le Pape Cheikh Diallo gëna nek nekk media liguey rek RFM jël p TFM jël p lops jël p Record jël p yous Ndour p ñun ñepp p ku nek domaine ba nga nek ya ci jël p c'est le groupe secteur media ki gagne waye nak Pape Cheikh Aba groupe Futurs media gis yàlla amul yenent bi amu ko sëriñ tubaa amu ko maam alaaji maal amu ko mag ñu baax ñi ci réew mi kenn amu ko ci yéen mënu leen ko am foo leen jaar ñu wax wax ci yéen foo leen jaar ñu sosal leen mënta ñàkk réew mi Sénégal moo demee noonu nitey toog ci ruqam xool lu ko neex mu waxal la ko sosal la kereel la defar ay affaire ba mu jekk maanaam day defar ay fen ba mu jekk mu publier ko ay fen yu jekk lay defar publier ko mais c'est bien parce que soo demee cim réew ndeysaan toll fa dara bañ ciy wa ba ñuy wax ci yow sant yàlla la parce que am na ñu bëggoon a wax ci ñoom te kenn waxul ci ñoom mais nag xam nga Sénégal moo mel nii mais dara xoolal nekk leen ci li ngeen nekk te dox sa dox Aba Pape bu leen kenn jaxate réew mi dafa bari ay saytaane bu leen kenn jaxase bu leen déglu ma sàmba bu leen déglu ma ja ma demba ay seytaane kese fi ne jaxase nit ñi dong leen fi nekkee liggéey seen liggéey leen seen liggéey ànd seen ànd dox seen dox yéen ñaar ñëpp kenn namu ci dara ku dul yéen ñaar sax employé ba gën a tuuti Futurs Médias namul dara waxtuma ak yéen ñaar voilà employé Youssou Ndour ba nam dara fu mu am fan la am laisse-les